ci alxamis ji dëppoog le 17 septembre 2020 di 28 muharram 1442 ginnaaw gàddaak yonent bi salallaahu alayhi wa sallam sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiiru xalif général des mourides ñëwoon ci résidence xaadim rasul bi nga xam ne moo nekkee ci Touba Daarul naan doon fa nemmeeku si ay liggéey yoo xam ne dañ ko santoon ñenn ci cheikhi sëriñ Touba yi liggéey yooyu noppi ñu war ko jébbal sëriñ bi bi mu agsee ci 13 heures bi mu tegalee ay simili rek ci la jubali ci jumaa ji nga xam ne moom lañ dénkoon njabootug sëriñ Aliou Diouf làmbaay gi ñu ko doon yeesal ñu liggéey ko ci liggéey bu mucc ayib lool te jamono yi ci ginnaaw sax sëriñ Bassirou Mbacke Abdoul Khadir jotoon na fee ñëw ci turu sëriñ bi nemmeeku liggéey bi ba yëkkati fi woon ay kàddu yu am solo ci teewaayug njabootug sëriñ Aliou Diouf làmbaay yi sëriñ bi nag tey jii ñëwal na boppam ci jumaa ji ànd ak ay kilifa yu takk lool doxal boppam ci tànkam yu tedd yi ñu wan ko jumaa ji ci teewaayuk njabootuk sëriñ ali juuf làmbaay gi ñu leeral ko liggéey bi nga xam ne moom lañ leen santoon Ceerno Faali Diouf muy mm. xalifa sëriñ Aliou Diouf mm. daa wax ne ginnaaw ba mu santee gërëm mm-hmm. ñëpp commencé nañ di ñaan nga yàgg te wér nga jiitu woon lañu ñu naalante motut nga mottali ko ak li nga naal te amee ci ngërëmul sëriñ bi la ca dolli ko nag amiin la ca dolli ko itam wax ji moom nee na du bari ndax sant yàlla rek la ndax sëriñ Tuubaa kum liggéeyloo xam nga ne dina la fay liggéey bi itam sëriñ bee ko liggéeyal boppam dañ ko teg ci loxol sëriñ Thierno Fall yi waaye sëriñ Thierno Fall yi wax na ne sëriñ Aliou dey sëriñ Tuubaa ku wax Saada tàll ak Demba Baro ak sëñ Mbàkke Maane ñoom lañ njëkk a liggéeyloo ay kër ci ñoom ba mu jógee ca liggéey sëñ Mbàkke Maane ba ba sëñ Aliou demee Sëriñ Touba am nga ngërëm lu jafe ngërëmul Mbàkke Maane loolee nag mooy dox ba nii ngërëm looy ni di ko sàkku sëriñ bi nee nee na mi ngi lay seereel ne mboolem ñi mu bokkal sëñ Aliou ak ñi mu bokkal Bawol ak ñi di wëlëre sant na ñëpp gërëm na ñëpp ndax danga koo tegal ci loxoom sëñ Abdoulaye mi nga xam ne moom mag ci sët yi mu mu defaat ko muy jëwriñ mu ànd ko ak sëñ Ahmadou mii di xalifa sëñ Modou ak sëñ daam Diab mi xalifa ko sëñ Basirou ak sëñ euh, Assane Diouf rakkam ak sëñ Alaaji Diouf ak sëñ Aliou Baxdaat ñoo ñi nga xam ne ñooy ñooy kër sëñ Aliou ñoom la àndalan ñu di ay doom ak sët ak taalibe waaye bañ ko tàmbalee ba ni mu àggee saa geesoo gis na leen loo xamante ne bii ak bëgg ma di sa bëggit def nañ ko ci ba mu jeex kon mu ngi lay seetal ne nag gërëm na gërëm na leen ngërëm loo xamante ne bii mi ngi la koy seeral nam waxoon kero rek ñu ñaan njariñu tey ak ëllëg ak taalibe gu amut ak ak yàqu rek loolu rek loolu kàddu yi ñu def moom moom moom kon ngërëm loolu mu leen gërëm nag waaw nee na kon moom ngërëm loolu mu leen gërëm gërëm nañ ko alhamdulilah nee na moom moomu gërëm nañ ko ànd moom gërëm te ànd ak ñoom si ngërëm loolu mu leen gërëm nee na jërë ngeen jëf nee na sedd na guy nee na xel dal na bu wér nee na rek la demee nee na fas yéene koo ànd ak yéen rek alhamdulilah uh-huh. Mbacke jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke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 رمانه تجليا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله